بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh dellu siwaat nañ ci seen jotaay wa rattilil qur'ana tartila ngeen di ci ànd ak seen bokk Abou Taha Mouhamed Alioune Guèye ñu ànd di jàngat ahkaamu tajwid waaye jaare ko ci téere yi nga xam ni boroom xam-xami fànn gi bind nañ ko ñu doon nafar muqaddimatul jazariya تولون شباب مخارج الحروف بقسون مخرج الجوف أك حرف في جنة وهي مخرج الحلق أك حرف أك حرف في جنة نيورا دوري كونتي تي بيتوب فكك نيار خمني تبير بيت بوبي تي لا مخرج اللسان تامبالي دي نيتلو مخارج مخرج تي المخارج العامة برمتي ربيني gannaaw ba nga xamee ni bayt bi mi ngi doore ci addinaahu gaynuha wala addinaahu gaynun xaauha loolu mi ngi bokk ci maxraju alxalq di addina alxalq gisoon nañ ko ci jotaay bi wees maxrajul lisaan mi ngi doore kon ci waxam ji mu ni wal qaafu aqsa lisaani fawqu thumma alkaafu mu ni wal xarful qaaf moom ci wàllu génwaay mi ngi génne ci aqsal lisaani fawqu aqsal lisaan mooy fi gën sori ci làmmeñ fi gën a sori ci làmmeñ mooy fa làmmeñ gën a jigee put fa làmmeñ gën a put foofi la ñuy lisaan moom aqsal lisaan moom yi dafa séddaliku ci ñaari maxraj ñaari xarafa fa dëkk waaye ñaari xarafa fa dëkk tegaloowuñu maanaam bokkuñu exact benn espace bu ñuy génne ñoo bokk espace su aqsal lisaan gi waaye tegaloowuñ fa ñoom ñaar al xalq wala al alqaaf mooy génn ca kaw bu doon ablal dañ naan moo dëkk ca jëlëg ba moo dëkk ca jëlëg ba ca kaw alkaaf xarful kaaf gi nekk ci kitaab wala shirkikum te takraar ci baat boobi moom mooy génne ci suufu qaaf maanaam fi qaaf dëkk ci suufam tuuti ci même aqsal lisaan fa gën a sore ci làmmañ foofii la dëkk moo tax borom téere bi nii wal qaafu xarful qaaf aqsal lisaani moom mi ngi dëkk fi gën a sori ca làmmañ فوق تكو فوق تكو ثم الكاف نينا الكاف موج توب اسفل يعني اسفل مخرج القاف تي جن ويقاف قاف فوفي لدك كن في جن سوري تي لامن نياري حرف فدك قاف كاف ما جخلين بين قاعد بو خامني بروم خامني دنج كاي واخ تي بو بغي اختبار مخرج الحرف xaraf boo bëgg xam fu muy génne dañuy wax ne jàng ko bil iskaan bu ne la qaaf mi ngi génne ca fa gën a sori ci làmmeñ ca kaw qaaf kaaf topp ci nekk ci suufam tuuti waaye ñoom ñaar ñëpp nag ñoom ñaar ñëpp dañuy ànd ak alxanak al aala li leen tiim ci dénqali ñu kaw dañuy ànd ak moom ma ni boo bëggee ixtibaar teste xaraf wi ba xam fi muy génne jàng ko bi sukun bone nee aq aq da yëg ni la gën a sori ci sa làmmiñ te gën a jige put moo jug laal li ko tiim ci dénqali ñu kaw bone ak ak da yég ni la gën a sori ca làmmiñ la waaye gën naa jige tuuti biti fi nga xamante ni fa la génne moo tax mu ni bi muy wax qaaf mu ni fawqu ca kaw a kaw bi muy wax kaaf mu ni asfalu ci suufu génnukaayu qaaf waaye ñoom ñaar ñëpp nag ñu ngi ci biir aqsal lisaan loolu lu mat a bàyyi xel kon benn ñaari maxraj a ngi noonu ci maxraju al lisaan di génnukaayu qaaf ak génnukaayu kaaf mu ni wal wastu fa jiimu shiinu yaa wal wastu ca digg ba digg làmmañ digg làmmañ ñetti xarab ñoo fa dëkk jiim shiin yaa jiim shiin yaa moo tax mu ne wal wast fa jiimu shiinu yaa ñoom tamit bu ñuy génne foofu foofa ñuy génne di digg làmmiñ day laalaale li ko tiim ci dénqale nu kaw moo tax bu ñuy eh, taabir maxraj bi dañ naan wasata al lisaan maa maa yalihi min alxanaki al aala wasata al lisaan maa maa da gis loolu boo ne aj da ngay yëg ni sa digg làmmiñ laal ci kaw li ko tiim ash ay kadalik ñetti xaraf yooyu composé baatu jaysh baatu jaysh ñetti xaraf la ñetti xaraf yooyu ko composé yëpp yëpp mooy xuru xaraf yi nga xamante ni ñooy génne ci fi ñuy tuddee wasatal lisaan digg làmmiñ bu àndeeg li ko tiim ci dénq li ñu kaw mu ni waddaadu min xaafatihi id waliyaa la draasa min aysara aw yumnaaha nee bu dee daad min xaafatihi moom ci wetu làmmiñ lay génne cati wetu làmmiñ id waliya ladrasa bu àndeeg bañ ya ñuy tudde dégëj bañ ya ñuy tudde dégëj xam ngeen ne ay bañ ci wolof <laughs> dafa am lu ñuy tudde ay daba am ay sell mangoog am ba dégëj dégëj mooy bañ ya féete biir ya sës ci wàllu ndeyjoor ak ci wàllu càmmañ nee na dood moom ci peti làmmeñ la lay génne waaye bu àndeek ay dégéej min ay sara yu càmmoñ yi aw yum naaha wala yu ndeyjoor yi ànd ni génnee ko wetuk càmmoñ maanaam eh, peti làmmeñ yi laal wetuk càmmoñ dégéej yi wetu wetu moo gën a yomb moo gën a ëpp it luñ koy gis eh, wetu ndeyjoor gi tamit eh, lu mën a nekk la même ñaari wet yépp tamit lu mën a nekk la waaye lu jafe la ma ngoog loolu la jublu ci wa daadu min xaafatihi id bu àndeek peti làmmiñ yi bu àndeek ladraasa digéej ya min aysara moo xam côté côté ndeyjoor la ko laale aw yumnaaha wala côté càmmoñ waaye nga déggaale ci li ma juñu sànq wala ñaari côté yëpp kon nde càmmoñ moo ëpp eh, ci luñ ko fay génne wetu ndeyjoor am na ñu ko fay génne am na ñoo xamante ni ñaari wet yëpp ñaari weti làmmiñ yëpp lañuy ñuy laalale eh, al adras ci wetu ndeyjoor ak wetu càmmoñ pour xarfu dood génn ad أض يجني حافت اللسان فوف لا يجني بو عندك الأدراس مع ما يحاذيه من الأدراس من واللام أدناها لمنتهاها اللام مخرج اللام موي جروميل مخرج تي مخارج خاصه يمي تود اللسان نخ تودنا نيار yu xaaf kaaf tudd yi dëkk ci digg làmmiñ tudd maxraju dood ñeenta ngi noonu kon ci làmmiñ juróomeel bi mooy maxraju laam mu ni wallaamu adnaaha li muntahaha laam mi ngi génne moomit ci cati weti làmmiñ ci cat li li muntahaaha fa mu jeexee nga xam ni boo ko waxee boo ne al al al da yëg ni catu làmmeñ wi fi làmmeñ wi jeexee ci yaatuwaayam day laal euh, bañi kaw al ba laalaale sax fa siiñ ma doore li ñu tuddee athulla maxrajul lam mooy foofii kon lam mi ngi génne ci taraful lisaan catu làmmeñ bu àndeeg eh, reeñ reeni ba ñu kaw bu àndeeg reeni ba kaw foofu la laam di génne wan nuunu nee na bu dee nuun nag min tarafihi moom it ci catu làmmeñ lay génne textu ci suufu laam ijaalu lañ ko def maanaam fi laam dëkk ci suufam tuuti foofii la nun dëkk an bu laam dëkkee ci catlee catli boo avancé tuuti ci suufu catli ci ci catli ba léegi ci suufam suufu laam nee na foofii la nun dëkk war raa nee na bu dee raa dag moom yudaanihi moo jige Euh, allaam li dahrin adxalu moom ci biti làmmeñ lañ ko teg ci biti catu làmmeñ foofii lay génne da ngay gis ne kon ñetti xaraf yooyu seen génn waaye jigéen na di laam raa ak nuun looloo tax ma junju ca jotaay yee ni ñi nga xam ni dañ koo def fukk ñeent ñett xaraf yooyu yëpp dañ koo génneenoo ci taraful lisaan rek waaye moom da ngay gis wax ni ci catle catli bu àndeek reeni bañu kaw fala lam di génne ci suufu lam fala nuun nekk ci catu làmmeñ ci zahr zahr tarafal lisaan foofii la raa nekk dama ne nuunu min tarafihi taxtu jacalu warraa yudanihi li dhahrin adxalu nangok Euh, loolu lenn la kon ci maxaarijul xuruuf ci maxraj bu mag boobu tudd al lisaan xam naa sunu waxtu moo yemani foofu dañuy taxawani foofu kon incha allah ba sunu jotaay bi di ñëw ñu continuer ci bunt bi bunt génnuwaayu xaraf yi war a xool xaraf yi ci topp benn bu nekk fu muy génne ndax bu ñuy jàng alquran ñu mën ko faa génne ndax mu mën a wér mën a jub mën a set seen mbokk la woon Abou Taha Mouhamed Alioune Guèye ci seen bindu borattilil qur'ani tartila assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu Allahu Allahu رتل القرآن ترتيلا